Música mm-hmm. bëgg bagage yu qualité benn place rek moo fi am mooy American Shop moo yor bépp xeetu bagage boo xam ni dafa qualité képp ku fi dugg rek lépp loo soxla ci bagage danga koy am cey waa American sob ñoo dem ba America indi leen bagage yi gën a baax ci àdduna bi bagage yi gën a qualité daw leen ngeen dugg American sob bi ngeen ko fa fekk am ñu extra gomme am na nañu Colgate toothpaste American Lipton Tea Nivea spray Nivea lotion Nivea roll-on Crest toothpaste am na ñu roll-on am nañu sel pack tissu fly fix baby diaper am nañu ay spray am nañu e spray Rexona spray Dove spray Dove roll-on Dove soap Dove lotion Timeless roll-on Fada Wear roll-on Jasmine rice maalo bu baax te sa kan te bëriwul tànn am na ñu mu tàdd am na ñu tamit diwlin bu baax te du nelaw American Shop nag am na ñu different place daw leen ca Mandela Street foofu ca Banjul fekk fa American Shop am na ñu beneen place bu bees foofu ca Kololi Batil Hadin Highway jàkkaarloo ak Foma Bakadaji kon yéen ñi lu baax seen jubluwaay na nekk American Shop me American Sub rek laa taam daw leen gaaw ci American Sub yéen a fi man Lido basmati rice produced specific farms from North India. Lido basmati is perfect for good health. Number 1 selling basmati rice in West Africa. namm la nag moo tax ma seet si la. waaye defal nga ma lu waaye. xamoon naa ne Armanti Mbaye rees la. Ah. Armanti produit yi rek laay dundee. afkaan benn la. moo tax it defaral ma ma nekk. waa sama gën gi doy waar ah moo yey nag armanti ak ay prodogam gis ko ànd ak sa sago day jëfe lool ndax li ko waral mooy dafa neex ànd ak qualité ba ñu jëlee seen yoon ba tey wàcc ñu ko mësuñu wecc seen bépp caf kay product neexul ba neexul waaye armanti ak ay prodogam dara gënu koo neex mayonnaise bi gën na lool ci saa yoo toggee sa palaat bu rafet saa yoo ubbi siwu armanti mayonnaise xet nga foo tollu da koy jël waaye tamit noonu lañu amee meew armanti bu neex ay armanti ak ay produits am amul lenn lu ko gën. ci kër Dongo war di mooy warga dawaas es bii nag bi ma ko ñemee ba léegi aw ma jàmm cay bii warga warga bi neex na saf na boo ko naanee da ngay xam ne warga piir nga naan war warga dawaas es moo tax nag ma daw wëri ko seeti ko fépp fu mu am rek ma daw wuti ko waaw waaw képp kuy naan ga dawaas es nga taamu boo lekkee lu ëpp boo ko naanee rek mu wàcc man daal ga dawaas es laa taamu bitik marché ak supermarket boo demee di nga ko fa fekk ndax moo xew ci jamono moom la ñëpp taamu nga naan seconde bi ne moo dàqati balaas barada te kola bi du ceeñ mukk yow mi bëgg wholesale wala retail lépp mën naa am wala ngeen seeti leen ci seen makkan bu mag bi nekk ci Banjul opposite high court bi di nga gis seen place bi ñu bind ca inasaha kola bu green la neex na xàmme lool wala nga ko leen ci 271 76 76 warga dawaas SB mooy suma warga moom lay naan <laughs> Hello, boy. My name is Santa B. Happy day, Santa. Follow me. lo di sawar lo yok len katan bagasi sonto bi mën ngeen ko amé ca makkan bu mag a ca Banjul 61 lemon Street teggil tëgga 422 7566 Sontop. Happy day with sonto amena wow mané am ngeen njagaan gas yalla téré man suma jabar mu ne njagaan kaas rek la bugg ndax moo gën a sakan moom lay toggee de ah ok <laughs> seen arrivage bu bi ñëw na kon njagaan kaas amaat na ay jeex na <laughs> bàyyil ma ñëw léegi léegi ciy njëgaan gaz moom la ñëpp taamu ndax ñëpp a koy wër rawatina jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy toggee gaz njëgaan gaz rek la ñu taamu te yi tamit doomi réew mi ñoo ko fi indi fii ci biir Gambia la ñu koy fiile képp koo xam ni dangay ngay togg njëgaan gaz nga taamu ak ki nekk ci hôtel bi njëgaan gaz la taamu bépp taay boo soxla rek am nañu ko am nañu bu 3 kilo am nañu 6 kilo 9 kilo 12 kilo 38 kilos ba 50 lépp loo ci soxla rek ñegaan gaz am nañu ko yow mi koy laaj kool leen ci 371 4453 baa nga fekk leen ca Kanifing ci Johnson Sankum Silla gaz bi gën ci gaz yi bi gën baax te gën a sakkan mooy njegaan gaz cey njegaan gaz si rek la xel yi dal cey njegaan gaz man moom laa wax cey njegaan gaz mooy suñu gaz <laughs> jabarga fukka ñaar fukki jabar ak ñaar xaalis yow di islam rey na la man ngi ñibbi di yi léegi suba suba suma xëy dina ñëw wuy ma dem imam yi dum leen ni jënd num leen nexé ah sa way lu dagan ñoo ñi nga mun a ñi nga mun a ñoo ñoo fa de <laughs> bay li ngay def de fukki jabar ak ñaar yow li islam rey dina la bu yàgg suba ñëwaatal suba ba déet rek wax ak suma wañ ma soof na wax léegi xam na la def. Hmm. xaaral ma bindal la cek parce que xam naa ne dox nga naaj bu tàng. dimbale waaw te sonn naa de. Hmm? sonn naa loolu. ma joxagum la dara nga xam. waaw ma ñam. waaw <laughs> waa ca. toogal waa ji moo baax de. cam. daay daay la laa. Ah. doon milliardaire fuuy laay def fuuy far force. fuuy far force laay def waaw. jangan tambah kuat pergi. Cek sama awak. Jalan cek. Jadi je. Kamu nane mau cek semua herban. Finnya mal. Bayo saya yo yo yo film dek ni. Mungkin kamu fokus dak fuf. Dapat lima. Kira gue meli. Subuh nyewal. Hah? Nah, jom dolar. Subuh nyewal mata kelas citaranya. Jom dolar ya di bahkan kolanya kedodolnya tuh. billaay yaati bakkan ku ku la gëj a gis billaay yaati bakkan ku la ñàkk dootul ñàkk maa ngay def ba suba. baax na suba teel benn problème incha allah. hannde si o yaltii ɗo si o yaltii ɗo naa ko feƴƴi naane ko Yeah! Mimi tu hata Ya ulo ichapi chapi ni. Wa legi toga toga toga toga limohla toga legi toga toga. toga toga. toga. léegi toogal rek ngay dëmm dëmm lu ni toogal toogal ma la gis nga yow li ma lay xamal mooy fexeel nga am kër gu mel nii moo gën nga toog ci buntu kër gi di gën a torox ku ñëw nga naan dang koy jéem a daq di ko jéem a soxore di ko jéem a iñaane xam nga dañuy wax ne pour aayul dag yaa aay yow kii li mu yor munoo ci dara dangaa soxor moo tax nga ne ku dugg def koy ñaan xaalis loolu amul fexeel nga ut kër dégg nga ñàkk nga jom torop boppam bu sew bi

salaamaaleykum. waaleykum salaam. doom yaay. doom yaay nam naa la. ci loo ne. yaa ngi si jàmm sant rek. joxe nga naaj de. waaw yow gis nga ko de man dama ne ci dëkk bi di rek. foo jógee dama xam fu ma jógee. Ah, yaa ko yàllaa ci boole. léegi la lawal bi pare. la toogal tuuti rek time bi jot ñu naan ko bu jeex. hello yaa si rajo ci loo nekk yaa ngi fay nama naa la nakam nag waaw doxu naa ma la dama doon ut néeg dem fële suñu alaaji sa biir di wër néeg gisante inja inja jabari ni jaay waagaan ba suma mbokka inja su ma doy bàjjen bi foos la de foos mais ma naan ko teg mais ma naan

jox ma néeg ne ma bul fay da def ma yëre moo yaay ma jooy fa yi jooy naa feex def ma suma yi yu fi brief yaa ma gën a xam rek ci sumay mbir ma ne ma gëti ne ba jox ma naan ma bul fay dara suma ni jaay lañ jox kër gi maa ko yor petiti petita lu ne mu dugg wax sax kon naa ñetti fan laa fa am xam nga ñeenti fan ne borom kër ga ñëw génne ko fa ne ko jox ko beneen kër kër gu rafet gu am taar goo xam ne xoola mu àjjiwaat ma foofu dama kaay dikk ak man waaw taxi ba ma ànd sax dañ ma ko fay li xam nga suma mbir rek jëkkër ji na xoola guddi gu jot ñu lang suma nekk ndom yaay xam nga lama ma doon oh. diis pass ma fi dajag benn gonne go xamone na ni ngay ñew ci wax sa wax yi ñak friday xamone na ne si yi ngay ñëw aca ñewal ma ngi lay ah! diis yële ya? dañoo dama togon fele ya? benn campé mu naan ataaya ñëwal gii la sa ataaya dawaas gii la ab benn xale bu ñu fa romb xale boo xamante ni boo ko gisee comme perte xale bi ma foog ne ah, xoolal ceynis la ñu mel melu kaanu ceynis tege dam yaay léegi afta xale bi di ñëw ma koy xool di ko xool yenn saa yi ma naan nii di xool xale bi ba mu xaw a egsi xam nga indi ma pare nekk ci xayam moo ko dal waaw lii yow Ya sudah bu malah laa wah sax Yaudah baax na yow Ini déggante dinaa ñëw jënd si biis udah ah. sudah xew sax waa man dina mom Chinese ci cong. kañ nga dégg Chinese Mama jahal di ma fane xalé bi nan ma tontu nekkete xalé bi dugg ci dara waye gis nga bama noppé noppee ba foog ma ci né tara rek ba foog ma ci né waye gis nga bi xalé bi tourné dem xana da ngeen foog ne dégg mo la fa ko nga <coughs> ko nga ci wolof ci wolof ma ko lan mu né ma ah, wa wa lé nga def na yeen du ngeen bañ ma ne ko suuf ci dé touti dugol na rek bi rek a desoon waaye yaram yëpp na ay gam tar léegi ab tënk ngeen mo jëm mba numa numa jëlé lamba non yow nelaw nga. yow li nga ma fiy wax si yow pour man yow da nga am ba téye ba pare. xaj ma nelaw nga. nu ma nelawee. billahi wallahi nelaw nga. ah yow ku xas ma ràcc. yow kooku mën na ne kaw ga la jógee xoolal kooku boolonkante woon moom léegi léegi mu génne la ci yi nga nekk. yow yaa ngi ni di sonn rek di jaabante rek xoolal. yaa ngi nii Johnson bu ne añee nga fa Johnson bu ne ndogoo nga fa Johnson bu ne réeree nga fa fii la fi mu ne nii fii nga teer si te xam naa lee la fi indi booy bu ma waxati loolu waaye ah dinaa la ko wax kay ndax man dëgg du xam naa lee tax nga may daw waaye dinaa la ko wax man dëgg gi dinaa la ko wax ma gisee booy bu ma waxati loolu man maa ne Johnson bu ma waxati loolu loolu laay bañ maa ne ndogu nga ndogoy xanaa yow bu ko too jàmm yow booy Johnson bu ne añee nga fa Johnson bu ne añee nga fa dangay rek dangay mën a régler de xoolal dama bëgg a jël sa bagage dem jëla sa bagage man maa fi dul ñëwati jëla sa bagage li ma tax du ma fi ñëw yow lii rek nga fi nekk ma dama tey booy xëy fi ñëw yow jëgër yëgër fu ne armanti lido moji american shop njegaan gas warga dawas S, ñi ñoo leen doon may kër